sëriñ Babacar Sy maam alxaaji Mansour moo def loolu ñëpp gërëm nañ ko ñëpp nag laa ndax it commencé yomb na waaye yëggali moo jafe commencé yomb na mais yëggali moo jafe commencé na yëggali na alhamdulillahi rabbil alamin commencé na ko yëggali na ko ci dundam alhamdulillahi rabbil alamin yal na wér yal na wér yal na wér ba jullee ko baa mu yebal ku ko jullee waaw li ñaanoon yëpp nangu na li ñaanoon yàlla yëpp bëgg na na wér ba jullee ko baa mu yebal ku ko jullee yal na ko yàlla def waaw ko yàlla def jumaa ji moom jekk na Tiwaawan de na fi torop torop alaaji Maalik li mu liggéey ci diini yi def ko ci diini ji alaaji Maalik xëy xëy am jumaa ju mel nii ju fekk si ji mu amoon ah jumaa ji rëy de rafet na de taaru na torop torop waaye nag li ma ci benn waaye laaj ne ma nag waaye nag entretien bi ma ne ko entretien bi ñëpp koy defandoo ku gisul salt dindil ku tilim dindil waaye bul gis ne xale yi rek xale yi xale yi xale yi waaw ku gis lu salte dindil ku lu yàq defaral ku lu yàqu defaral loolu mooy dimbale eh, ki liggéey liggéey bi waaye Pape Serigne Mbaye ah jàmbaara trop jàmbaar la torop torop te gis nga li ma neex ci moom ñàkk caaxaan gi ko doon wax li ma neex ci moom ñàkk caaxaan waaw ñàkk caaxaan ak ak a dëggu waaw loolu mooy mbiram ñàkk caaxaan ak ak a dëggu sëriñ Mbaye ñàkk caaxaan sëriñ Mbaye dëggu ñaar yooyu feeñ na ci jumaa yi moom bu bu bu xasee dëd ma rek ma la dara moom daal la alin waxoon ni ida kunta fii amrin fakun fii loo dëdmal la ti dëdmal ko bul faale kenn mooy bul faale ba jumaa ji yegg parce que eh, jumaa ji nag bul defee ne neex naa liggéey neexu la liggéey de ku amul fayda dëgg amu fulla dëgg xamoo fa nga jëm dëgg doo ko mën a defar waaye moom fulla am na fulla am na fayda xam na li muy def te ñi ñemewuñ ko kenn ñemewu koo sangu naan ko nangam nangam nangam du mën a xeex du dara waaye am la ak yëg boppam ni nii la war a doxalee nit moom bu xamee boppam rek jeex na te dafa xam boppam waaw dafa xam boppam moo tax xale yi itam macha ñi mu àndal jàmbaar lañu jàppale nañ ko ba ba liggéey bi yegg doomam itam doom ya doom yëpp jàmbaar waaye Moustapha jàmbaar la doomam la ndax sëñ Babacar Si ba nga xamante ne mu ngay defar zaawiya ba ca Ndar Seydi Hadji di ko defar daf ko ne Babacar gaawal bu zaawiya bi yeggee ma bàyyi seen àdduna dem noppalu ji seetal ko kii moo ñeme dee kii moo ñeme dee waaye dafa xam li ma wax ma bàyyi leen ak seen adduna dem noppalu ji ba zaawiya ba yegg sëñ Babacar taxaw rek taxaw ko taxaw ko ba mu yegg waaye sëñ euh, euh, Moustapha mi itam taxaw na rek di taxaw di taxaw taxaw ba mu yegg la sëñ Babacar amoon yal na ko am la sëñ Babacar amoon yàlla na ko am la si amoon ci baayam yàlla na ko am lu ko ëpp ci baayam la sëñ Babacar si amoon ci baayam yàlla na am lu ko ëpp ci baayam la sëñ Babacar amoon ci baayam yal na am lu ko ci baayam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam jumaa ji moom jekk na ah, ñun daal am nañ jumaa <coughs> am nañ jumaa daal am nañ jumaa waaw am nañu jumaa ah, am nañ jumaa rek waaw jumaa ju maalige ju maalige nag bu bu alaaji maalige bu niroog alaaji maalig waaw bu jamono am nañ ko alhamdulilahi rabbil alamin commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani ko ci alhamdulilahi rabbil alamin looloo jafe ak jafe commencé ci bisimillahi yeggali ci alhamdulilahi ak jafe bu yàllaawul rek doo ko man bu yàllaawul doo ko man waaye ku ku ko koo def ti yàlla ta da ko man de Pape Serigne Mbaye nag li mu def yàlla rek a tax kenn taxul parce que bu nit taxoon ma bàyyi ko waaye yàlla rek a tax mu def ko mu sëgg ci sëgg ci sëgg ci sëgg ci ba mu xëy yegg tey mu fekkee ko alhamdulilahi rabbil alamin waaw bu fekkee ne ko alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla may jàmm may ko wér may ko kattan may ko lépp lu mu bëgg yàlla na ko am te dana ko am incha allahu taala maa koy. jërëjëf Oustaz ma bàyyi la nga tàggatoo. waaw xanaa rek ñu góorgóorlu rek ñu góorgóorlu suñu réew réew mi ñoo ko bokk buñ ko bàyyee président du sotti buñ ko président bàyyee du sotti nañ ko bokk ñun ñëpp ndax mu sotti. ku ne na jàpp fenn waaye kenn ku ne bu naan waaw man sama wàll sama wàll waaw ma ne lu ma lu matul dara ko ko wàlloo foo jëm bu ñu rëbbee jàpp përëntaan te nekk téeméeri nit benn përëntaan ñu ne ku nekk ne sama wàll ku ku nu nitee amee wàll hmm? day compliqué kon nag muy Sénégal rek sama wàll amu fi liggéey rek a fi am sama wàll am waaye kenn ku ne moom daal xaalis rek xaalis xaalis xaalis li Maodo waxoon ne gàmm daal li ma ci xam tii yóbbu waxuma ko ci tiyaabo laa ci wa ku bëgg daal defal tiyaabo waaye bul def tii yóbbu ti yóbbu doxul xaraam na tiyaabo mo dagan waaw tiyaabo moo dagan kon nag nañ def tiyaabo rek nañ def tiyaabo góorgóorlu rek ñun ñëpp kenn ku ne fa nga nekk nga nekk fa la ngay def nga góorgóorlu ca ba nga ba nga am ca ndam waaw waa waaye bu fekkente ne dañ naan waaw Basir Diomaye joxuma dara Basir Diomaye joxuma dara Basir Diomaye dafa am lu mu joxe moom li moom bu ko joxee àdduna am tukki waaye lii réew mi moom nag du ko jox kenn lii réew mi moom da koy def ci fii réew mi moom lii réew mi moom na ko def fii réew mi moom waaye bu mu ko def ci ci poos yi nit ñi waaw ku bëgg dara da ngay liggéey ku bëgg a am dara da ngay liggéey ku bëgg xaalis da ngay liggéey waaye doo ko doo ko ak ci réew mi ku bëgg am dara da ngay def dara waaw kay waaye naan Basir Diomaye yow jaaxaan rek bëgg affaire dox du sotti jaaxaan mu dox du sotti da ngay da nangu liggéey gaaw nga toll nga ci gaawal def ko boo ko weesoo rek noppal nga ci di ndaw toll nga ci di man am kàttan toll nga ci mën a lijjanti ak ca góorgóorlu bu weesee nga noppal wa tabaarakallaa toll ca def ko weesu ko noppal en tout cas li lañ leen indiloon tey mu nekkoon oustaz Iran Ndao yaakaar naa euh, yéen internet yi bëgg ngeen te kontaanati ngeen macha allah di ñaan at bu jot yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal ba ñu mën ñëw di ko ziar si sekk ak moom waxtaan yu am solo yi moom aussi ñu ñaanal ko wér ak gudd fan bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen jàpp ci côté technique bi di jaajëfal aussi suñu njaatige bi ñu fi fekk at bu jot alin moom dañuy toppatoo ba ñu baax ñu kër ga beneen yoon donc jërë ngeen jëf internet ba à très bientôt